salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi taamu la référence internationale ñu ah, juróom ñenti waxtu jot ci ah, hôpital fan jot itam 5e fi ci studio ale Momar Lo ñu dikk ak yéen ci xibaaru su gi ci kàllaamay ko ci atal bu ngeen taaxiloo tuti rek ñu jukki len li ci gëna fess na ci rewum suñu gal wañi na tay ji ci altiné ji ñaar fukki fan ci weer ak avril bi ñu ne juróomeelu doomam bu ñak ah, bakanam ci mbass mi di coronavirus gannaaw ñent ñamu jot yobbu ñay jaay glace ak sachet ndox yi jangoro ji di coronavirus ak weeru koor gi ñuy waajal taxna ba boole wuñ leen ci plastique yañ fi nar a jëlee ñu nar koo tàmbale tey ji ñaar fukki fan ci weer wi ne gannaaw ba ñu ko wotee ca pencum ndawi réew mooy keroog fanweeri fan ci weer ak décembre atum daa ngeen ci dégg jëwriñ ba ñu dénk wàllu aalam gi waxtu waa fond Medina Baye ña ngay gën di wane seen bopp ci xeexu coronavirus bi ñu uh, ne chèque uh, fukki million moom la ñu jébbal ko gornoor ba noppi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ci turu ñaan ci batine ngir jëlé fi a ah, jangoro ji da ngeen ci dégg baaxa jop jóp ña ngay ñaan ngir yalla ak yoonenté ba ngeen ñu wutal ñu bërepp ba ndax ñu mëna am da fu ñu daane suñu ah, doolé ndax kaw rek rek lañu am waye tam ñu afenn ah, ñu moy kaddu ya borom jakarta ya marchand ambulant yak ya borom pousse pousse yak ña doon lal ci suufa yëkëti jëmele ko ci kilifa ya nga xamné ñoo leen jëlé ci marché ba ngir taxal ko waaye itam tan di ku mbass mi di coronavirus da ngeen ci dégg cheikh ababacar dieng xabaaru bitim réew soxna ngone ndjay kan lañ ci àndal tàggat yaram serigne moussa kan li kay xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Oumar Cissé lay doon bu li lépp yembe mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala taal loolu ñu dikk ak yéen ci atal gi ak faram-fàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye Khady Sadio. daal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi taamul ak Atlantique international gi lay xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeeko fii ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Aly Momar Lo El Hadji Libaas Mbaye moo janook man ci wàllu machine gi ba dégg-dégg bi man di leer junjoon nañ ko réew ma sunu gaal wàññi na juróomeelu doomam bu ñàkk bakkanam ci mbas mi di coronavirus ab góor la amoon euh, juróom-ñaar fukki at ak ñeent ñu ngi ko entré woon nag ca l'hôpital Fann mu génn àddina tey ji ci altine ji ñaar fukki fan bi 4 heures 50 jotee maanaam ñeenti waxtu bu tëgal euh, juróom fukki simili joxuñ ba ñu dénk wàllu wér-gu-yaram nag di ministère de la ministre de la santé de l' action sociale ma ngay euh, jaal njaboot gi waaye itam di leen massaw bu baax a baax daan ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xabaar ñu euh, lu waax ba euh, pencum ndawi réew ma woote woon jëmale ko ci jële fi lépp luy xeetoog plastique ñu nar koo tàmbale tey jii ñaar fukki fan ci weer ak avril bi ñu nekk nii ngir aar alam gi waaye itam boole kooku gën a mën a ñoŋal lii koom gi Euh, Abdou Karim la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 bi nga concerner la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des sachets plastiques Moi, loi Boubès le 30 décembre 2019 Assemblée nationale voté à l'unanimité le président de la République promulgué que le 8 janvier 2020 nous publier au journal officiel le 20 janvier donc au terme des dispositions transitoires nous nga concerné la loi bi loi entrer en vigueur trois mois après sa publication donc le war est le 20 avril bi nga le ne le son excellence le président de la république dafa am programme bu am solo ginaaw mesure yi nga xamné ne jëloon na ko ci njëlbeen muy programme de résilience économique et sociale bi mu jagleel li nga xamné mom moy mooy xeexu mi nga xamné comme nima ko waxé sank dafa gané ci suñu réew ben banqaas ci xeex bi moy la stabilisation macroéconomique et l'appui au secteur privé Madame, nous la ñuy ba ar sunu kom kom ak jappalé ñi nga xam ne ñoom ci secteur privé bi Lolu nak waral bi nga xamné promulgué nañu loi bi ñu publier au journal officiel le ministère de l'environnement et du développement durable engagé ay plan d'action pour waxtaan si ak parties prenantes yépp wala parti intéressé yépp pour naka la ñuy fexe ba ñépp am la même compréhension ci li nga xam ne moom loi bi nga xam ne moom moo wutu la loi 2015 09 du 4 mai 2015 bi nga xam aussi dañ ko indi woon pour mu xeex li nga xam ne moom mooy plastique. gannaaw waxtaan yooyu lekk daje yi nga xam ne rek amal nañ ko ci tey ji nag ci altine ji ñaar fukki fan lañ ko naka a tàmbale waaye itam ngir kenn ban ca loru ci ñi nga xam ne rek ngi yëngu kilifa yi jël nañ ci ay dogal rawatina ci jamonoy mbas mi ñu nekk weeru koor bi ñuy waajal gën caa fës di sachet ndox yi ak mbuusu ah, ñi nga xam ne rek ñoom ñooy jaay li nga xam ne mooy glace ñoom nag mel na ne duñ ci bokk bu ñu ko ah, teewloo ba léegi moom Abdou Karim Sall ak Arouna Niang ginnaaw bu ñu commencé tàmbali sunu CRD dans les régions ñu jàpp ni bi nga xam ne mbas mi gane na réew mi instruction yu autorité yi joxe waroon ñépp bàyyi ci xel tax ba ñu suspendre activité yooyu ba jëmmi jamono moo tax tey jii pour bañ a indi ay jafe-jafe supplémentaire ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu emploi bi ci wàllu social bi ci wàllu secteur privé bi autorité yi sunu kilifa yi jox ñu ay tegtal pour ñu indi ay assouplissement par rapport ak li nga xam ne mooy entrée en vigueur bi ñu dégmal le 20 avril pour que mu bañ a indi ay ngaañ-ngaañ ci ñi nga xam ne ñoom la concerné moom la loi bi concerné ñu joxoon ci ñi nga xam ne dañu doon yëngatu ci li nga xam ne moom mooy les sachets d'eau ak li nga xam ne moom mooy mbuusu glace yi xam ngeen ni également ñu ngi ma weeru koor lu yàggul te weeru koor nag ku ko wax wax ne soxla bi nga xam ne population yépp dinañ ko am ci wàllu jëfandikoo ndox donc ñaari situation yi tax na lépp li nga xam ne dafa concerné woon sachet ndox yi ak mbuusu glace yi dakkal nañ ko ba xeex bi nga xam ne moom la ñu sumb ñu jagleel ko coronavirus bi ba yàlla may ñu mu génn suñu réew waaye nañu jàpp ni loi bi dafay dugg en vigueur inshallah le 20 avril lépp li nga xam ne importation maanaam jéggaani indi ci ak fabriqué ci biir réew mi li ñuy tuddee les sachets à usage unique loi bi dañ koy appliquer incha allah di féliciter également di remercier ñépp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw booba léegi taxaw temm guddi ak bëccëg di xeex li nga xam ne moom mooy le coronavirus bi nga xam ne dugg na sunu réew ekoon ministre de l'environnement di Abdou Karim Sall dañuy dellu siwaat fii ci euh, Kaolack des ci kilifa yi ba léegi mbedd yu bëri ci biir euh, biir marché central rafetoon lool yaatu woon lool itam tax kilifa yi bëgg a gisaat boobule taar waaye itam fexe moytandiku jàngoro ji di coronavirus ñu daal di leen yëkkati ñoom ñi fa doon lal borom puus-puus yeeg borom jakarta yi doon fa lal rek ngir daan seeni doole yëkkati nañ leen ci teewaayam moom Cheikh bu Kaolack ni mu mel moom ci xataay jéggi dayo bu dara xewul sax waa dëkk bi waruñu ko seetaan lii mooy kàddu Aline Badara Mbeng mooy gouverneuru Kaolack mën nga continuer ancien garage Nioro nga jaar nii yi wax ka niveau dogo fecc sama gannaaw mën nga dem ba route nationale numéro fii dafa rafetoon amoon na sax quelques arbres yu fi nekkoon mais dañoo toog rek ñii ñëw di installé duñu wax ñu installé duñu wax ba finalement ñu feesal ko ku nekk def lu la neex donc en temps normal sax marché de ak centre commercial Cheikh Al Islam yokk ci xal wi jaar buntu Sonatel génnee ji ca route nationale ba mbedd yi la yëpp ay ndaraan ñoo fi gont dal di ko xàll ñu am seeni place te langaloo nit mbaxana ya yëpp ñu xàppati ko boo taxawee ci cat lii di seen leneen cat li yoon wi yaatu ci oto yi nit ñi it mën a dox kenn du leen garfandal fi mu nekk nag commandement territorial bi ñu ne des na nag ci borom cantine yi ñu am seen fullaay bopp kon gisati nga lal fii ñu wax ko commissaire Aline Badara Mbeng gouverneur bu Kaolack la te xam nga dafa rafetul sax yow nga def sa cantine am ñu nga xam dañuy ñëw jóor ay bagage ci kanam di fa jaay ba ku ñëw du am sax fu muy jaar donc manque à gagner la parce que man bu muy ñëw ci benn cantine ma gis ne damay jéggi di wër pour accéder ci cantine bi mais damay continuer dem sama yoon du ma fa nekk di sonn pour jënd rek donc ñoom aussi ñooñu war a gën a njëkk dimbal ay xale yu góor yu amoon jakarta amoon fii garage ay mère de famille yu lem seen njaay sol ko ci saako borom bitigi mbagg yu taxaw temm ñëpp nag am jaaxale lii ku ne mën naa liggéey waaye faaw ñi tegee ci yoon loolu la gouverneur bi xam xamle. doo ñëw ci ab tali lal say marchandise parfois jën parfois légume ba nga xam ne lii ku ko jënd sax boo ko demee lekk yow xamoo li ngay lekk nga lal ko fa buñ leen waxee ñu ne waaw damay daan doole pour dimbale sama yaay mais ñëpp am seen yaay yu dimbale mais nag doo ko defee ci anam bu ne bàyyi nañ leen xel lii nag dafa bokk ci opération yi nga xam ne kilifay réew ñu ngi koy amal ngir ñàkk dëkk bi ba jàngoroy coronavirus bañ fee dugg sant la bu ñu daanee seen doole ndax jaaxle nañu sonn nañu te it nag seen yaakaar yëpp nag ci yooyu les places la ko wékkoon ngir am lu ñu jàppale seen ak njaboot ñu teewlu leen ak Cheikh Ababacar Dieng Saliou Ndiaye nekk préport di loué Jakarta dañ leen a yëkkati yéen tamit waaw dañuy yëkkati kay amuñ leen lu suñu kër dañuy ñaan nag préfet comme mooy suñu njiit mutul ñu gaz boo xam ne dinañ mën a liggéey sàccuñ fennuñ yor njaboot yor ay doom te bu ñu xëyee amul lu ci marché mën nañ dem def leneen waaye ñaañu ko yàlla comme yàlla dafa ñoo may ñuy liggéey ci Jakarta yi di suturu la ñoo bëggoon ngir yàlla yante bi mu jégante yàlla tax may ñu koo xam ne day ñëw pour suturloo foofu ñu amul lu Kaolack li mu def nii rafet na d'accord nañ mais bu fi nar a borom Jakarta yi loolu tamit day gën a métti loolu benn cas day am encore mais mu dul leen beneen garage mu dul marché bi ngeen taxaw ne waaw tey ji garage garage mooy fan tey ji ban garage nga mën a taf yi muy fan ah, dëkk bi kay yaatu na mais dëkk bi yaatu na yaatu na mais ñun fi ñu xamee fa la ñu fi client yi xamee préport te beneen garage boo fi indi tamit dañuy yéefi ne rek ñu toll nii dañoo sonn dañoo jaaxle amuñu jëmukaay dañu dimbali kon ginnaaw yëkkati nañu suñu place yi ñu seetal ñu feneen fi ñu war a waaw ci marché bi la ñu yaakaar muy góor muy jigéen ñun ñëpp ci marché bi la yaakaar suñu palaata yi ca la ñu suñu waa moom laa yoree sama kër sama borom kër dafa noppalu bàyyee ma gone yu ndaw yàlla taabal bii laa yaakaar tey gi maa ngi nii sama bagage yaa ngi ne ñemewu ma koo génnee affaire bi métti na métti na torop looy jaay man salaat lay jaay dañ laa yëkkati yow tam fii ñëpp lañ yëkkati ñu nekk fii ñëpp xanaa ñu dimbala ñu rek utal ñu fuñ jaay parce que xam nga rek jigéen mënut a toog te liggéeyu parce que li ñuy liggéey si nañoo suñ bopp yoo si suñuy xale suñ toogee du baax bëgg ñoo def nag loo xam ne neexut yàlla bëgg ñoo sàcc bëgg ñoo fen daal suñ boole faj suñuy soxla lañ xam nañu dimbaleen jàpp jàppale ñu rek askan yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point fukki simili moo bootu ci gannaaw juróom-ñeenti waxtu ca hôpital bu Touba Mbacké ñu ñëw yenn ci pàcc bu yaatu bu ñu jagleel lépp lu xeetook coronavirus bi Mbacké Bawol ñoom it jot nañu ci feebar bi di coronavirus gannaaw ba ñu testé ñaar si ay doomam ba wane ne am nañu ko jamono ji nag ñuy wax yéen ña nga ca këru docteur bu Daaru Marnaan désinfecté seen i kër mu doon yaakaar gu tas ci askanu Mbacké Mamadou Moustapha Mbaye yaakaaram yaatu woon lool moom Mbacké Bawol ne dana mucc ci feebar bi di coronavirus gannaaw ba nu nemmeeku ne kon am na dëkk yu bari ci biir Sénégal yu nga xam ne fer bi jot na fa dugg bokk na ci yooyee dëkk bu sell bii di Touba fegoog moom ndaxte fii ñu ngi fi lim gën gaa néew fanweeri doomu aadama ak benn yu nga xam ne jot na nañu am Covid 19 jamono jële nu génn jotoon nañu sax am tiitaange fii ci Mbàkke ndaxte ay moodu moodu yu baree bari ñoo ba woon bitim réew ñoo fii waaye bi nga xamee ni kon ñi nga xam ne ñooy saytu wér-gu-yaramu askan wi jël nañ leen xool leen nemmeeku leen gis nañu ne kon dara jotu leen yaakaar googee kon dafa mujj yàkkeeku ndax te gis nañu ne kon am na ñaari doomu aadama yu nga xam ne biñ leen testé am na nu doomu jàngoro bi kenn ki mu ngi dëkk ginnaaw raay ab bijoutier la ka des moom ab marchand ambulant la mi ngi dëkk fi nga xam ne moom mooy tableau caabi ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom jël nañ seen matuwaay ba tax na kon ñoom ñaar ñooñee jot na leen yóbbu ci centre de santé bu daaru man naan ngir fexe ba ñoom nu faj leen foofee seeni kërit fexe jamono ji askan wi ci boppam ñu ngi xippi seeni gët ngir xool fan la wanet di mujje ki gëtam ki feebar bi ci dëkk bi di Touba ak Mbacke Mamadou Moustapha Mbaye Mbacke Alfayda FM Mamadou Moustapha Mbaye da nga ñuy gunge ba uh, ca Casamance suñu dem seeti ñeneen ñu jaaxle waaye itam tiit lool ci jàngoro ji nga xam ne rek mag ngi fay law bëccëgu démb bi rek uh, ba juróom-benn nit am nañ ko fa tax askan wi ne jot na kilifa yi wax ak ñoom xamal leen lu ñu xamul ci feebar bi waxtaan ci ak ñoom ba nga xam ne rek daanu ko mën a moytu seen bopp uh, Eh, Mohammed Mohamed jàngoro coronavirus mu ngi gën di law fii ci diwaanu Ziguinchor juróom benn nit ñi amee feebar bi lañ jot a enregistré ci dimanche bi ñoom ñëpp ñu nekk ay nit ñi nga xamante ne dañoo amoon contact ak premier cas communautaire ñu nekk situation bi nga xamante ne jaaxal na torop askan wi yeewoo fii ci diwaanu Ziguinchor. ñu jàpp ne Ziguinchor juróom benn nit am nañ ko ñii ñu leen mettre en quarantaine waaw jaaxle nag wax dëgg yàlla. jëkkoon na métti bu muy doog a egg si Sénégal mu ñëwaat egg si sawet encore daf lay gën a tiital mu gën a jox la njaaxare. cas yu bees yooyu. daanaka ci quartier ñuy duppee Lindiane ak Jaabiir foofu lañ leen détecté bu ñu sukkandikoo suñuy source kilifa yi yor wàllum wér-gu-yaram war nañu gën a góorlu ci li nga xamante ne mooy sensibilisation bi ci quartier yooyu le bu ñu sukkandikoo ci Moussa Sakho bu ko si mais jar na daal ñu gën a ñaax askan bi gën a leen expliquer ñu mun a am conscience si danger bu nekk di ñoom bu boobaa ñoom sax ñooy toogal seen bopp ñoom sax ñooy defaat quarantaine seen bopp te bu boobaa day gën a yomb kenn du jéem a yax a quarantaine bu parce que da ngay xam ni sama wér-gu-yaram la dina tax bi nga xam ne feebar mun na fi jóge dans le quartier nañu mun a dundaat comme ñu doon dundee. juróom-benn yi nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo jot a am feebar bi ñooñu yóbbu nañ leen ci guddi samedi ca centre prise en charge bu nekk ci hôpital régional ay nit yu bëri ñu ngi leen di ber waxtu ji ndaxte njort nañ ni am nañu ay contact ak ñi nga xamante ne ñooñu la ñu jot a confirmé ñi leen di fàttali ni fukk ak ñaari cas yu positif lañ jot a enregistré ci région bu Ziguinchor depuis coronavirus bu mu dooree ñooñule ñett jot nañu weer kenn moo daal di ñàkk bakkanam juróom-ñetti nit ñoo ngi leen di faj ca centre de traitement bu nekk ci hôpital régional bu Ziguinchor. Ziguinchor Mohamed Sagna Alfayda FM. jaajëf Mohamed Sagna dañuy deseeg sa micro dem seeti directrice générale bi jiite hôpital public yi nekk ci réewum sunu gaal moom nag amaloon na fa tukki ba nemmeeku li ko dalee Kolda Tamba ak Ziguinchor googe wër këru docteur yi xool lan mooy seen i jafe-jafe lu ñu soxla jëm ci jumtukaay ak i ngir mën a jaamarloo ko feebar bi tam waxtaan ak ñoom ci fànn yu bari docteur Fatou Mbaye mbay la yu yoo ñu teewlu ko ak Mohamed Sagna ci xex bi moom fi am solo trop trop parce que maladie fa la ñu fajoo ñu bëggoon xam ndax suñu hôpitaux yi ma cité ndax centre de traitement yi jaar na yoon ndax lépp luñu matuwaay yi ñu war a jël yëpp jël nañ ko ndax formation bi def nañ ko ndax matériel bi am na ak médicament ak yooyu xool aussi ndax directeur ñi ngi liggéey bu baax ak médecin chef de région yi ndax ñi ngi liggéey ci ak gouverneur ba nga xam ni lépp war na yem malade bu ñëw ñu jël ko ci condition yu mucc ayib wax dëgg yàlla mu fi ñëwee nag sama xel dal na ndax boo ko jëlee Tamba ba chol bi nu mujjee ñoom ñëpp li ñu war a def def nañ ko identifié nañ benn foo xam ne fii fa ñuy faje malaat yi def nañ seen doole def ci seen

encore mooy bu ñu amee ay cas grave dina xaw a metti pour prise en charge bi dañu waxoon actuellement prise en charge cas grave yi Dakar la ak Saint-Louis ak Ziguinchor parce que Ziguinchor ni mu sori mu jël malade fii di ko yóbbu ba Dakar moo tax ñu ñëw waxtaan yi suñu collaborateurs yi directeurs yi ak équipe technique yëpp ñu yi naka la ñuy fexe ba liggéey bi gën a yem équipement bi gën a disponible xayma nañuy soxla ci ay médecins xayma nañuy soxla ci ay infirmiers ak ay équipements ministre de Sénégal jàppale woon nañ pour cinq milliards envoyé nañ commande moom la xaar te bu soobee rek ci ay fan yu gàtt bu ñëwee dañ ko mën a à la disposition ndax ñu am conditions yu soo gisee ñëw gaawal gaaw ba ca war dañ nekk contexte boo xam ne bi àdduna bépp ñu demee ak nu munti demee même commande boobu su ñëwagul am nañu ay pexe yoo xam ne biir Dakar mën nañu ko fi def ba nga xam ne dinañ am ay respirateur ak lépp lu ànd ñu ni ko fi teg dimbalante ñu dooree ko waa Fonds Medina bàyyi ñoom ña ngay wéy di wane seen bopp ci xeex bi gannaaw ndimbal yu ñu yóbbu ci bërëb yu bëree bëri yëkkatiwaat nañu sekku fukki million teg ko ci loxol Gornor won ko itam téeméeri tonnu ceeb ak fukk yi ñu jënd ngir baaxee ko askan wi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass moom moo ko teg ci loxol Gornor ci turu xalif bi jaxamal ko itam ne weeru kor wu jot dañuy amal firi ak Alxuraan waaye ñu ngi leen ciy déglu ñoom kilifa yi bu ñee waaw ñu def ko bu ñee déet ñu bàyyi Bara Diop ngir daan mbas mi di coronavirus fond bu Medina Baye moo ngi continuer di joxe ay ndimbal ci ni ñu ko xamee ngoonuk samedi ji ñoo ngi ci saalu xalif général Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass ngir jébbal gouverneur bu Kaolack chegu 10 millions bu jëm ci force Covid 19. Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di wax ci turu xalif bi xam le ne mbas mi la gan la fi te ñoo ngi ñaan mu dëdduñu ba faw yal na ko yàlla jëlee ci àddina bi yëpp itam seen taxawaay rafet na seen góorgóorlu seen feeñ dëgg-dëgg ba di ko ñee ci taxawaayam ci feebar bi dëgg-dëgg fekk c'est ay jàmbaar a ngi fi. gouverneur bu diwaanu Kaolack xam le ne nangu na 10 million yi le te daañu ko yeggale ci force Covid 19. 10 millions yi di nekk contribution au niveau national. bu ma ko mën a yëkkati nii jox ko président de la république danaa dem ba teg ko ci loxo mais bu soobee yàlla dana dugg ci force Covid.

Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass daal di xam le ne baaxoon nañu saa su koor wi teroo rek ñu amal tafsirul quranul karim waye bu ren bile Medina Baye moo ngi ciy déglu autorité yi daanañu am bu weeru koor jotaan ñu daje di firi alquran xam ren nag kenn xamagut def ñu ngi déglu seen wax rek nu ngeen ñu wax ni noonu ngeen ko war a defee rek noonu ngeen koy defee bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu bàyyi ko. gouverneur bu Kaolack yeggale cant ak ngërmaane ba président de la république ci xalif général Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass ngir nu ñu jàppalanteeg ñoom ci xeexu mbas mi lee di coronavirus ne donte Medina Baye moo ngi amal ay julli waaye ñoo ngi koy organiser ci anam bi ko état bi bëggee tax na gërëm nañu leen ci gërëm gu amul ab dama leen di gërëmaat bu baax ci turu président de la république wax dëgg yàlla yombalal ngeen ñu ko euh, taxul nag ñi ngi julli parce nangu ko mais organiser ngeen ko ba ñi ñaa ngi nodd bañ a neenal jumaa ji te ni ñu ko bëggee yéen a ngi koy defee noonu loolu wax dëgg yàlla dama noonu bu ma ñëwee tey ji naa ko wax parce nag euh, ku gërëmul xarab bi ñu jógee ci saalu xalif général Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass gouverneur bu diwaanu Kaolack moo ngi ànd ak Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé nekk mu mag bi nekk ci diggu pays bi moo ngi koy présenté ceeb bu ñu jënd toll ci téeméeri tonne ak fukk lii symbole la muy chèque boobu nga xam ne 10 millions joxe na ko pour mu jëm ci lutte contre Covid bi ak tim génnee 100 dix tonnes pour dimbalante ceeg askan bi gannaaw juróom fukk ak juróomi millions yi pont bu dina bàyyi génnee ci jibaam lii jëm ci force covid 19 léeg-léeg dem ci ay produits wàllu ceeb bi moom lañ doon dalloo keroog samedi tax na fi lekk fan yi ñu dëgmal daañu amal séddale gi wàccee la sa wàccuwaay Bara Diop des ak sa micro fii ci euh, Medina Baye taxawaayu doomu sunu gaal ci ay pexe ci njàmbaarte ak xam ak fépp fu ñu mën a nekk Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass rafetlu na ko xamal l'autorité yi itam ne lépp lu ñu bëgg ci xeex bi ngir jàngoro ji dem abal ñu nu ko raw la ko daara yi euh, bëggee jaaxir ko ci ay ñaan ndax yàlla mi réewum sunu gaal am moom la rawee yeneen réew yu mel ne Canada Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ak Bara Diop. seen taxawaay jekk na Sénégal wane na am na ay doom am na ay jàmbaar yoo xam ne mën nañoo taxaw ci kanamam ak seen i pexe ak seen kattan ak seen xam-xam te bi lii xewee wone nañ ko la ko dalee ci président de la république li ko dalee ci médecin yi li ko dalee ci infirmier yi ñoom ñëpp ñu ngi taxaw taxawaayu jàmbaar yoo xam ne lii di ñëw te baaxut ci ñun lum laaj danañ ko def ci suñ mën-mën ak suñ kattan donc bon mënuñoo am ñun tamit lu dul taxaw ci seen côté di ñaan yàlla ndax ni ngeen bëggee mbir mi jógee fii ci Sénégal waa daara ji itam noonu lañ bëgg mu jógee fii ci Sénégal am seen i pexe yoo xam ne yàlla teg na ko ci seen i loxo muy pexe ay xam-xam pexe technologie yàlla teg na ko ci seen i loxo yéen a ngi ciy def li nga xam ne yéen a ngi ko ko war a defee ngir jàppale population bi moo leen war te bi mu leen waree tamit yëg ngeen ko te bi nga ko yëgee itam yéen a ko def ak cofeel yéen a ngi ko def ak mbëggeel yéen a ko def ak ñambaar ñun tamit ñu ngi toog ci suñuy daara ñu ngi jàng ñu ngi ñaan lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ci ay ñaan ñu ngi koy taxaw di ko ñaan yal nañu yàlla musal ci musiba mi maa ngi rafet bi mu taxaw ci corona bi maa ngi dégg benn waay bu koy tontu naan nangam ak ma ne ko déedéet Sénégal dañoo am yàlla rek te ñoom amuñu yàlla ñoom ñu ngi liggéey ci suñuy technologie waaye itam ñu ngi liggéey ak suñuy ñaan ñaan bi ak technologie bi bu àndee ñoom ñaar ñëpp lu ñu bëgg mooy ne na fi corona bi jógee na fi lépp luy indi fitna yàlla na ko fi yàlla jële mu nekkoon Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ci turu xalif bi Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé yore kàddu njabootu Medina Baye ne joxe bi li ko wundu bokk na ci wane ne ñoo ngi ànd ak réew mi bu neexee waaye ñoo ngi waaye itam ñoo ngi ànd ak mi ci bu méttee ndax feebar bi mbooloo rek moo ko fi mën a jëlee ànd ak baatin gi nga xam ne ñoo ngi ci guddi ak bëccëg ñu teewlu ko baax a jopp dëgg la président jël na ay pexeem réew mi yëpp tim ku nekk yaa ngi taxaw ci sa façon bi nga ma ne sëriñ bi lim def sax ëpp na lii waaye bi nga xamee ne yàlla tagg na ci alquran alladina yunfiquuna amwaalahum billeyli wannahaari sirran wa alaaniyatan falahum ajruma inda falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun yàlla tagg ñi nga xam ne dañuy dundale seen xaalis ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ci guddi ak ci bëccëg lii nag lenn la ci li feeñ jublu ci xamal président mais xamal askan bi yëpp ne ñu ngi ànd ak réew mi ci niñ àndeeg réew mi ci bépp bànneex noonu lañ àndeeg réew mi ci bépp tat tat ak jafe jafe-jafe boo ne réew koy jànkuwanteeg tey feebar bi dafa nekk loo xam ne lu critique la loo xam ne dafa laaj nit ñi seen mboole mi doole ñi boole ko pour xeex ak lii ni nga xamee ne sëriñ bi taxaw na njaboot gi yëpp taxaw ci ñaan yàlla ak def soppandiku yi nga xam ne dëgg dëgg mag ñi baaxoon nañ ko di ko def ci lii te yàlla it baaxoon ak ñun ne ci lépp luñ ko def yalla def ci sutura loolu ñu ngi ci waaye tim pour wan président ne ko ñi ngi ànd ak ñoom tim ci zahir bi lii symbole la muy chèque boobu nga xam ne 10 millions joxe na ko mu jëm ci lutte contre covid bi cent dix tonnes pour dimbalante ceeg askan bi comme ni nga xamee ne génnoon na dix millions jënd ci ay masque ay gel yi tesaare ko ci jumaa yeeg ci daara yeeg ci askan bi loolu lenn la mën ci li muy def waaye la nga xam ne moom lay def ca biir ci baatin di ko ñaan yàlla sant ko it njaboot gi topp gi rakkam yi ñoom ñëpp ñu taxaw loolu ñu ngi ci continuer di ko def ba bañu yàlla di teggilee lii teggi woo xam ne ñëpp dañ tekki seen bët ne yàlla defal nañu ci xar baax mi ngi noonu gornoor nag ne xeex bi li ci gën a ubb bopp kilifa yi mooy cas communautaire yi tax rek faw xeex bi tar te métti lool donte nag dina am ñoo xam ne du leen neex waaye terewul daanu ko wéyal gornoor Aline Badara Mbengue ak a Diop. xeex bi nag comme ni nga ko waxee wax dëgg yàlla Sénégal day réew mu tuuti la ci wàllu population ci wàllu superficie mais nag yàlla am na ñu may ci wàllu matière grise moo tax xam naa ne foo yenn pessimiste yi doon calculer crois bu soobee yàlla du ñu fa gis incha allah communautaire cas communautaire nag mooy nga yor ko te doo xam foo ko jëlee doo xam ku la ko am bu njëkk amoon na cas importé mooy ñi jógee bitim réew indi ko fii parce mbir mi bitim réew la commencé léegi cerné nañ leen parce que Sénégal na frontière am bi ko fii ñëw ñu aussi mu am ñu xam dañ nekkoon ñoom contact ñooñu aussi topp nañ leen ba presque contact yi léegi bëreetul li ñu yaakaar rek mooy cas communautaire cas communautaire nag pour nga xeex ko xeex bi day tar moo tax ay huit heures laa leen fa fekk xam nañ ne am na ñu ñu yëkkati on a remis de l'ordre am na ñu mu neexut wante nag nañ xam ne rek seen jàmm rek geneen wàll ga moom Gorno jaaxee na fa àddu jëmale ci masque yi ma ci turu comité de régional bi nga xam ne rek moom moo ko jiite ne ah, mi ngi ciy liggéey ak yenn ci ay tailleur ngir ah, kenn ku ne mën a jot masque boppam waaye itam sàkku na ci ñi nga xam ne ña ngay joxe ay ndimbal ngir ñu mën cee boole li nga xam ne moom mooy masque ndax soxla nañ ko lool jamono ji Gorno wax Aline Badara Mbeng ak Cheikh Ababacar Dieng masque yi moom dañu koy def ndaxte ka communautaire bi mu commencé réew yu bëri ne daal léegi xeex bi il faut ñu orienté ko jëmale ko nag ci port généralisé de masque pour ñëpp takk seen masque je crois que bu ko ñëpp defee kenn du wàll kenn kenn duñu ko wàll donc mu nekk lu baax ba tax na comité régional bi nga xam ne nii man maa ko jiite ñu def commande dans un premier temps démb 2000 masques daa waxoon gaa ngi ciy liggéey mais mu am beneen tailleur bu nga xam ne aussi bu ma ko consulté indil na ma sax ay échantillon démb ci ngoon moom itam pour ma defal ma yeneen 1000 masques muy 3000 masques dañ ko def rek pour lancer l' opération parce que comité régional amul moyens yu ko permettre mu joxe masque partout mais dañ koy lancer pour que ñi nga xam ni ñoy doomu doomu Kaolack ñi nga xam ne dimbale nañ yéen ñëpp vous êtes témoin bi ñu dem don yi ay ceeb ay dewlin ay sabu ay gel ñu jox ko nit ñi crois que ñooñu aussi dañ leen lancer appel ku ci am ay masque nga jox ñu ay masque masque yoyu bu ñu ko jëlee ñu koy distribuer ci lieu recevant du public lu mel marché yi lu melni yenen endroit yi nga xam ni nit ñi dañ fay dajalo mais aussi nañ ko distribuer ci point de transport yi nga xam ne ñu ngi ay taxi ñi nga xam ñu ngi yore autre moyen de transport pour que ñoom itam ñu mën a aar bopp je crois que bu ñu ko defee rek lu ci nekk war nga mën a mucc loolu mooy mbir mi dana permettre aussi xale yi ñu am ci luñ jàpp wax nga ma léegi ndax bu ñu koy jox ñi ñu ko jox aussi cax nañ la mooy dañ la ko jox mais d'abord am na masque yu nga xam mën nga ko fóot mais dañ la cax aussi ne boo gisee feneen fu ñuy jaayee masque aussi jënd ko yokk ci biñ la jox jox ko aussi sa njaboot bu ko defee ku ci nekk boo ci defee effort rek premier jet bi dana am yeneen da nga gis nit ñi takk masque parce que lu am Mbengue ba tey ñu desandi ci wàllu jàppalante ak dimbalante ñeneen ñu génne xaalis gu takku takku ngir jàppale ko lu tolloo ko ñetti junney boroom kër mooy waa mouvement ànd defar Kaolack te président Serigne Bouba jiite ko jëm ci ay ceeb dëwlin suukar ak i tàndarma waaye itam lépp li nga xam ne askan wi teewoon na ko ci wàllu raxsu as xayma gi nag toll ci fukki million ak juróom ci teewaayam la woon moom Cheikh Tidiane Sarr jëfati nañ mouvement bi ñuy wax ADK and defar Kaolack te président Serigne Boub jiite ko ñoom nag génne nañ lu tollok fukki millions ak juroom ci suñu xaalis ngir jappalé ko ñetti junne borom kër yo xamné lepp jëm ci xex bi ñi xex feebar bi ñuy wax coronavirus waaye timit waajal bu baax baax koor gi nga xamné ne nañ ko Serigne Boub moy président ADK don timit président chambre de commerce bu Kaolack. li ñu dajalé fi bonheuru 15 millions le provisoire. pour que ñu waxtaan nan lañ mëna fexé ba atteindre ci 3 mille familles loolu nak buñ ko mané loxol opérateur économique yi mi ngi ci loxol mouvement yi nga xamné ni ño and ak man ci ADK waaye ceeb rek yorul koor suukar def ci bax tandarma def ci bax détergent def ci bax ah ñun xam nañ base bi ñu ko wara jox dañ ko ubbi ci suñu nga xamné ni ño nek ci marché jigen ni proposer né ne tamit quartier yi nek dañ togg ci seen kër ñu jàppale leen ba nga xamné ni dañ mëna fexé ci daara yi tamit ñu mëna leen ko yobbu jittelu ADK profito na ci dajé bu nu mel wax timit ne modi ndimbal li nga xamné ne nguuru Sénégal jébal nako as askan wi moom nag nii la ko gisee woon. li ma doon proposé xëy na lii passé passé na nañ gërëm président de la république gërëm autorité ci ni ñu defee mais man damaa jàpp na buñ koy defaat nañ fexe commerçant yii ku leen woowoon tey ne leen sacrifiez-vous prix deux cent soixante quinze mille ceeb jaay leen ñu ko fii li ci des ngeen jël ko seen participation danañ ko def te fii du am transport du am dara état bi du fay transport te bu ku dem préfet wala gouverneur ñu jox la bon boo demee ci diw mu jox la mu bokk si ñi nga xam ne ñoo njëkk fii ci diwaanu Kaolack président Serigne

génne woon nañ cinq millions génn jox ko ñu yóbbu ko ci daara yi xam nga dafa am entreprise yoo xam ne nii dañuy toog amel nit ñi na yàlla a fay ndax ñiy fay fii location dañu am ay jafe-jafe surtout fekk sax nga am yeneen activité ko mën mais imagine entreprise boo xam ne ci temps normal mi ngi toogoon fayul salaire amee nit ñi deux mois trois mois kooku boo ko nit ñi buñ liggéey fayal salaire dana leen ko ameel rek waaye du ko fay kon mesure bi baax na mais liñ doon wax mooy mu am tampon mooy caisse sécurité sociale état bi jàppale ko mu jël salaire yi fay leen le temps que situation bi jeex entreprise yi dañuy rembourser état bi dañuy rembourser daf koy dugal dans le cadre d' accident de travail caisse sécurité sociale nañ xam lan mooy njëriñam kuy liggéey fii dafa am luñ lay versel ci foofu loolu lam lay jëriñ mooy bis boo demee ba dem incapacité de liggéey mooy nga dem yàlla accident dal la wala mu jigéen wérul mu nekk maternité entreprise bi danaan su ma la ko ne di fay te nga tëdd sa que trois mois da yàq entreprise kon nag damaa ragal ne lii ñëw ma wax muy accident de travail cest à muy balaa boo xam dafa wàcc kon nag caisse sécurité sociale war na taxaw xool jàngat loolu nan la ko réglé ndax loolu li tax ma di ko wax France loolu la def pays européen yëpp loolu la def kon Sénégal dafa ko ñi ngi roy France yëpp nañ ko roy ci façon bi mu jaar dimbale nit ni nga xam ne ni kenn du am retard président Serigne Mboup athlète bu nekk ci kaw la jot nga saaku ceeb ak dëwlin ak suukar ak xaalis ci loxol académie sportive sénégalaise bi ëmb athlète yu à la traité yi ngir jàppale ko athlète athlètes yu ndaw yi xew-xew bi nag amee woon ci njeextaluwaay bés bi ñu génn lépp tënku ci xeexu jam euh, coronavirus bi ñu ne ci teewaayam moom Cheikh Tidiane Diagne l'académie sportive sénégalaise pour la relance d'athlétisme nii la ñu ko duppee banqaas gi fare ci capitalu Saloum dugal na loxoom ci xeex wi ñeel mbas mi mag ñi doon yëngatu ci xeetu pom yi di daw fi mu ne nii nag ñu toog ci seeni piliangu retraite dakkuñu ba léegi di gunge xale yi nga xamante ne ñu ngi ci ñoom nag nee na ñu dañoo gis ne fi mu ne mbas mi laal na ñëpp ñi nga xamante ne presque dañuy yëngatu ci wàll ka tàggat yaram tax na ñu amal ab ndaje ngir dimbale xale yi nga xamante ne ci lii la ñu doon jëlee lëf ngir dimbale seeni waajur ndaxte Gueye président ligue athlétisme bu diwaanu Kaolack. association bi mu ngi tudd ASRA les anciens athlètes ay doomi Kaolack bari dañ cee nekk ñoo xam ne ñi vraiment def nañ seen jamono ñoom nag ñoo amoon nag xalaat boobu pour dimbale athlètes yu ndaw yi tonte ni li xew ci jamono ñu mun a am lu ñu yóbbu ñoom tam ca ya ñu tànn waroon ñaar fukki athlète athlète bu ne jox nañ la saako ceeb jox la benn diwlin bu 5 litres ak 3000 francs yow waxtoom. am naa saaku ceeb diwlin ak xaalis tamit su ma yeggee jox ko sama yaay sarax ñeneen ñi ñoo xam ne ndimbal la ñun ñëpp ñoo ko war a partagé wu nekkul ñun kese ñoo ko war a yore tamit ñu ngi koy topp bu baax moom ñu ngi ñuy raxasu ak savon ak ak bu baax en plus tamit ñu ngi soriwante un te ñu ngi toog suñu kër yi parce que restez chez vous lañ wax. jàngoroy coronavirus def na nag ay njeexital ci xeetu pom yi nga xamante ne yàgg naa sagal région bu kaw Kaolack bu ñu sukkandekoo nag ci président ligue bi mu ngi dikkaat sax ci jafe-jafe yi ñu am jamono jamono ji ndaxte gay football bi taxaw na dematuñ athlétisme bi taxaw na lamb ji taxaw na lépp taxaw xam nga athlètes yu ci bare élèves lañ te élèves yu ci bare dem nañu vacances académie sportive sénégalaise pour relance de l'athlétisme nag ñu ngi sàkku ci ñi nga xamante ne ñoo di gune yi ñu topp digay nguur gi waaye tamit di gën a jëfandikoo li nga xamante ne moo di masque yi jaajëf Cheikh Tidiane jaan ñi ko jiite kuréel googee nag ma ngay ñëwaat ci seen jëf joojee ñu def ñoom ancien athlètes yi nga xam ne yàgg nañoo bégal Sénégal waaye itam jaaree nañ fa nag di ñaax ndaw ñi ci wàllu njàng mi Cheikh Tourade Diouf lay wuyoo ak Cheikh Tidiane Diagne. ñëpp xam nañ ne pandémie bi yàlla na fi jóge mais couche yëpp la touché moo tax daal vraiment ñu ñëwoon tey indi fi ceeb ak diwlin une somme de 3000 francs pour leur transport dégg nga jagleel ko les athlètes de Kaolack ñooñu aussi ñan ñoo ko def wax naa leen ne c'est Asra mais Asra ñan la c'est les anciens athlètes yi nga xam ne ils faisaient la fierté même de ce pays ñooñu ñoom ñooy wane bëgg seen bopp à travers ce geste là ñu ngi wane ne ils aiment beaucoup le Sénégal te aimer son pays c'est un acte de foi loolu dal moo ñu dajale ñu bugg dimbalé dimbale ñëpp yan Kaolackois ñoo ci ne ma cité ci premièrement Boubacar Diallo ancien Kaolackois yëpp xam nañ kan moy Boubacar Diallo parce que il a fait les beaux jours du handball de Kaolack actuellement c'est un docteur sportif il vit aux États-Unis beaucoup mu ngi ci association bi Ami Mbacké Thiam ku melni mom jaratul présenté Ousmane ñoo xam ngeen ko mais Mbagnick mi nga xam c'est le président le président de la commission technique pour la relance de

bitim réew xabaax xabaaru uh, bitim réew soxna Ngoné Ndiaye Kane yaa ñu koy jukki lana fan lañ koy dooree Ndeye Khady gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi nag jukkim xabaar yi bitim réew yi tey dañu koy dooree ci amal daal la nga xamee ne rek moo di ab contrôle uh, routier maanaam daal ak ak rafal ak ramas goo xamee ne nag ma nga ñeel uh, tegaat ci yoon képp koo xamee ne rek ma ngay dawal ndaamaar tey jalgati moom préfet bu Paris nag moo doon amal lu ni mel waaye nag gannaaw gi loolu daal am na ay kaddu yu mu yëkkati daal di koy jëbal ña nga xamee ne nag ñoo di taskatu xabaar yi kaddu yooyee nag nga nekkoon ne daal di wax ne rek askan wa nañu gën a fagaruwaat waaye tamit mu jaare ca wax leen ne ñëpp ñi nga xamee ne jamono ji nag ñi ngi amee jàngoro di coronavirus waaye tamit ñëpp ñi nga xamee ne jamono ji ñi ngi tawat te nekk ci lalu hôpital yi la leen ko yóbbee lépp nag mooy seen dëgër bopp ñàkk sàmmonteeg digle kër docteur ak tamit ñàkk wàccook ndigal yi nga xamee ne nag ñoom euh, kilifa ya tegoon nañu ko waaye nag kàddoom yooyee mu yëkkati daal mu mel ni ki nag neexul benn yoon askan wa nga xamee ne ñoo yeewoo ca Paris ndax nag yëkkati jekkul jaaduwul te it nag wutee na lool ak la ñu doon xaar ca moom ba tax na nag moom DJ Lallement ni ki démb nag ci dibeex gi amal na rek ab communiqué daal di kay xaatim daal di cay amal ak ak njéggalu di wax na tamit na mu ko waxee ak na ko askan woo gisee wutee na lool waaye tamit lu mu ci mën ci doon te jooju le waxtu moom jaraaf bu Paris di wuyoo ci Anne Hidalgo moom ma nga doon amal rek ab jotaay ci RFI jotaay boobee nga xamee na nag ci la jaare daal di fësal ne daal moom dina jéem kémb fexe ba gunge gouvernement ba ci xeex ak di coronavirus mom Anne Hidalgo mu jaare ci Timit, di wax né tamit nak la koy défé moy fexé rek ba ñaari millions doomi adama ya nga xamé né ña nga yéwo ci Paris dina leen djébal li nga xamé rek modi ay masque ngir ñi mënd di ba amal lañu tuddé euh, dépistage massive manam dal bés bu yalla sak daanu pisté lu tollu ci junni ci ay doomi adama ci France jamono ji lu ëpp fukki junni ak juróom ñent ji ci ay doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan mu tukkee ko ci jàngoro ji di coronavirus waaye nag ci benn bés lëmb képp lu toll ci ñetti junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom daal di nañuy fàttu xabaar yi. bitim réew xabaar yi biti réew yi ba léegi nag nday xat yi ñu wéyandi dem ca Mali foofee nag ne naam daal ña nga ca ay jiixi jaaxa ndax nag jàngoro ji di coronavirus waaye tamit nag ñaawteef ya nga xamee ne waaye jihadiste ya ña ko fay amal teewul ña nga xamee ne nag ñoo di askan way yeewa foofee ñoom génn nañu rek dem wote ji ngir amal ñaareelu wërngalu jongante tabee fu pencum ndaw réew ma foofee ci pàttali nag moom réewum Mali niki ñaar fukki fan ci weer ak mars gi la ñu génn la ñu amaloon li nga xamee ne premier tour bi waaye lu mu ci mënti doon mënees nay wax ne jamono jii jogante yooye nak ña ngi amalee ci diggante geer ak virus. xabaar yi. bitim réew ñu wëyandi ba tey ak xabaar yi biti réew yi nag daal di koy jeexale ca réewam Tchad foofe nag kilifa ya dawal nañu yërmande waaye tamit nag daal dinañuy gis ne daal jamono ji jot na nag ñu taxawal li nga xamee ne rek moo di ab fonds de solidarité lépp nag ngir dimbale ñi nga xamee ne rek seen ak loxo jotul seen ak ginnaaw ba tax na nag moom jiitum réew ma di Idriss Déby ma nga cee woo képp koo xamee ne rek bàyyi defal yàlla la waaye tamit nag lu muy loolu moom jiitum réew ma ma ngay xam ne na daal daanu fexe nag ba teggil askan wa li nga xamee ne moo di pactiru euh, ndox ci durab juróom benn weer yi la ñu jëm waaye tamit teggil leen la nga xamee ne moo di pacturum courant loolee nag mi ngi nar am ci ñetti weer waaye nag mu nar a tàmbali ci njeexintalu weeru avril gi la ñu euh, nekk. xabaar yi bitim réew. nday xati li moo gënoon a fës tey jile ci jukkim xabaar yi euh, biti réew yi mbokk yi jàngeen jëfati.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 1982 83 ginnaaw ba mu ko fauché nag ñu fàttali leen moo nekkoon lieutenant tigre bu Fass ak Mbaye Guèye moom nag moo génn àdduna ñu koy football la ñuy waxtaane ginnaaw bi nga xamante ni pandémie bi di Covid 19 mi ngi wéy di wéyal di yàq tamit li nga xamante ni moom mooy koom foofu Italie football kat yi nag ak staffu AS Rome di club bu nekk foofu ca Italie ñoom nag nangu nañu ne dootuñu laal seen payoor diggante weeru mars ba weeru juin ñoom sax nee di leen complété li nga salaire yeneen employé yi nekk foofu le club bi di AS Roma ca Chine lañu jëm nak ginaaw ñetti wër nak ñu def ko ci àll bi sori seen football footballkat yi nek ci Wan Zal FC di club bi nga xamanteni mo nek ci Chine fi nga xamanteni fa la Covid 19 dal di doore ñoom footballkat yi nag ñibbi waat nañ seen kër nag nañu sax bëss bi ñu dorat seen entraînement ak seen club bi di waan ba gi ñu dëgmal confédération africaine bu football finale ligue des champions ak coupe de la confédération di le compétition. saison continentale bi ñu jagleel club bi ñu jàppoon ko ca weeru mai nag dañu ko mujj dàqandi ginnaaw bi nga xamante ni lii di coronavirus mi ngi wéy fii ci Afrique ma nga ko ndey xat yi ginnaaw ñu la ñaanalee kenn jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa jëf. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. Kër Adel.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 yéene kaay ñi ko xamal ca kër Masaar la dëkkoon juróom benn fukkat ak juróom ñett la xamoon ña ngi ko doon fajee ca hôpitalu Fann libération na jàq na dëgg-dëgg mi ngi door di jot ndax ci ñaari fan corona bi rey na ñaari nit ci Sénégal fekk ñaar ñam reyoon kon léegi am na ñeent ñu ci ñàkk seen bakkan ñu ne déetawaay li ñuy wax cas communautaire wàllaate goo xam na kenn xamul ku la ko wàll moom mi ngi gën di law di tasaaroo di fararari ci réew mi laas yéene dëggal ko na ko am nañ juróom-ñaari docteur yu bees tàq fekk fukk ak juróom ñett yu kaa contact muy ñaar fukk juróom yu bees critique yéen a kaay na yëf yi nag fa critique ba yegg ca lool ayaw seetal am na ñaari taalibe yu am corona Sénégal ay ca diwaanu Ziguinchor jàngoro ja dugg na ca biir taalibe yi aay kon lii fuñ koy waxee turbine yéen a kaay na ko yokk gi yokku kaa communautaire yokk man moo ma jaaxal te jaaxal askan wi waaye soxna sa nga xam ne xam na corona ca géejawaay wàqi tax na géejawaay nii ñëpp a nga jàq yow seet ah moom ndaw si dem na ay yoon yu bëri marché lim dugg oto kolandoo moom kenn mënu koo kont kon ñooñu ñëpp mën na leen ko wàll le quotidien yéen a kaay na kaa communautaire yi moom bu ñu waxantee dëgg Touba ak dakaar fa la gën a laa ñaayee la fa xam du jàmm de a yaw seetal am na ñaar ñu am corona bi ca Mbàkke Touba lañ leen ko wàllee ca marché Ocass ba ba tax ka jiite kër docteur ca diwaan ba nee na lu ëpp tuuru lii fa mu jëm baaxut xam nga lu ma bëgg transport oto yi daw diggante diwaan ak diwaan nañ ko dakkal bu benn génnati ba pare marché occas nañ ko tëj lu ko mooy du baax de source ay yéen a na ko xaarama yokkal la laneen lu garaaw lu am Touba ci corona bi fa xam benn soxna mbàkke-mbàkke bu yor jàngoro ji moom nag pharmacienne biologiste la doon liggéeyee Matlabul Fawzayni li ci garaaw mooy bi mu feebaree corona dal ko xamaguñ lan la soxna si fi mu dugg ak fa mu wër ak ñoom jëflante moo bëri ñetti kër docteur yu wuute dem na fa ngir ñu xoolal ko testal ko wér gi yaramam ñu ne déetawaay bi mu ñëwee toog ci saalu hôpital Matlabul Fawzayni def na fa lu ëpp fukki waxtoo ñaar jàpp ñaar fukk ak benn mbokkam ya njabootam waa kër docteur ñu bëri ñëw neen seet si ko taxaw jëflante ak moom ba tax ñaar fukki doomu aadama ak juróom yu ko jege fañ leen a ber bokk na ca jëkkëram moom docteur la yéen a kaay bi ne loolu moom fa garaw jëwri ñi nañ ko wàllu biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye na léegi nag man xam nga lu ma ci xam kon takk masque far force fara force doole mbaam la bés ni ki tey ci altine Sénégal ñëppay takk masque rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci barabu liggéeykaay yi ñuy wax service administration bi ak public secteur privé bi wàllu jënd ak commerce bi oto yi bépp client booy yeb ak chauffeur dal ñoom ñëppay takk mask ba ci apparenté oto yi mini car yeeg ñëpp a yem ku bañ nag na doo takk masque takk der yi fañ lay jàpp yoon def liggéeyam les éco yéen a kaay ñu ko xamal vox populi na ko en tout cas daal masque yi moom fi mu toll nii far force neex naqari ñëpp ñëpp a koy takk lenn daal la jëwriñ ji waxut mooy nit ñi dox ci mbedd mi boolewuleen ci waaye mboolem barabu liggéey kaay yi ku fay dem ak ña fay liggéey ak ngay uti ay këyit nga dugg ci oto ñooñu lañ wax nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne général François Ndiaye moom la ñu tànn njiit réew Macky Sall fal ko ngir mu jiite comité bi nga xam ne moo yor wàllu topp ak lijjanti leeral xalaal ji ñu dajale ngir dimbale ko nit ñi ci corona bi maanaam mooy mille milliards yu mag yi l'observateur moo ñu ko xamal di ñu xamal tamit jaar-jaaru général François Ndiaye soldat bu ay ñàkk caaxam xarañ mën liggéeyam Le Soleil yéen a kaay na ko taxawaayam ak fépp fu mu jaar lépp rafet te luñ ko dink am na ca ndam si du quotidien moom it di ñu xamale ak général bi enquête yéen a kaay moom di ñu xamale ak Mansour Faye goron ji tëram Macky Sall jëwriñ ji nga xam ne coowal ceeb beeg yóbbu beeg jënd beeg ko topp ah, yaaw seetal man la woon ëlbatiku ci politique nit ku dal am yar ceinture noire la fa jàng karaté ba yàqu wal fa ji ne ko waaye moom lu ko yàqal mooy coowal ceeb li pourtant am na ñu doon xalaat na sax mooy remplacer ji ëllëg makki ci réew mi waaye affaire am yàqu na de nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi mooy na contrat bi dox diggante Senelec ak Akilee administrateurs yi xotti nañu kontra ba taret Dakar Times moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy mbooleem ku am mbokk wàdd mu faatu bitim réew ci corona bi Macky dana la jox benn million ak genn wàll ngir jàppale la ko l'observateur moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom direct news mooy Aliou Sall rakk njiit réew Macky Sall ma ngay sàkku ci waa direct news journaliste ya ñu ndàmpee ko benn milliard ndax fañ koo tuumal waxal ko lu du dëgg diggante moom Aliou Sall ak Auchan direct news ne waaw moom xam nga mi ngi ñuy laaj ñun ñu fay ko un ci nee na bindal ko lu du dëgg waaye moom sénégalais ñu ngi koy topp ngir mu fay leen six mille milliards suñ pétrole bi xanaa loolu ci Sénégal ligue des imams ña ngay sàkk ñu jiite Macky Sall weeru koor wi di ñëw couvre-feu bi maanaam tere nit ñi buñ génn vingt heures nee na nañ ko toxal yóbbu ko ba vingt et une heures ak quatre heures du su ko defee nit ñi or ndogu mën a doxantu ba neuf heures ñu tëdd les éco yéen kaay ñi ko xamal l'observateur moom xamal ñu mbir mu garaaw benn soxna daal bu tudd Ndeye Mati Fall moo tàngal ndox ba mu tàng jir bay bax di satatati mu yenu cin la rek fekk ay doomu wujjëm yu jigéen ñett xale jigéen tëdd rek mu daal di leen koy sotti soodal leen ba seen yaram wa fulleeku xolleeku ci xanam gu ñaaw te mittee xool allah ñu yenn yóbbu leen hôpital kenn ca xale yu jigéen ya ma nga ca diggante du ak dee yëf yaa nga amee ca gël tàppe ndakaaru yéen a kaay bi na ndaw si nag yàgg naa jotee xuloo ak doomu jëkkëram yi waaye nam leen def ñaaw na ba kenn mënul leen a xool waa ma ne ak lu ngeen mën a jotee bu doon say doom la yaa leen jur est que di leen ko def ku jur war a yërëm fa ñoo waroon a baxal yow diwlin jël sa benn loxo bi rek laa wax rosi ko ba pare bàyyi la nga dem ci ngay xam la nga def ni méttee te ñaaw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 la jëm ci wàllu masque yi nga xam ne rek képp ku yeewoo fii ci biir réewum sunu gaal faw nga takku ko aar sa bopp aar ñi nga nekkal képp ku ko def nag ay daan dina tegu sa kaw rawatina ci bërëb bi mel ni fa ñu jëndee fa ñu jaayee oto yeeg secteur privé bi ak yeneen bërëb yi ni mel seen xalaat ak seen gis-gis ci 88 628 97 97 88 628 18 76 33 942 13 47 ci kanam tuuti lay doon gannaaw bu ñu noppee ak service commercial jaa jëf. Le journal khadi Sadio.